عليه زلي بتسليم بلا حدد في الآل والزعب وعزمنا من الدرر هد أمة المصطفى أما يجر لهم سوى العبادات وعزمهم من الزرر هد أمة المصطفى حما يجر لهم سوى العبادات وعزمهم من الزرر واسرب لخيرهم السيدان في أبد ولتكفهم كل من يسلو من البزر ولتصرف الداء عن مد الجميع به واسرف لهم موجبات الأمن والبزر واجعل خلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفدي إلى الخرر وسل دابا بتسليم عليه بمن لهم تما والتجد بالسف والدرر وزل دعبا بتسليم عليه بمن لهم تما والتجد بالسف والدرر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وقديمه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا waaw kay mbokki julli di mbokk taalibe yi ñëpp rek ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp sëñ Mor ñu ngi lay fay nuyoo di la wax ni waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu mbokki daara ji ci biir yëpp di jaajëfal sëñ Abdou Ndiaye ci xasida gu am solo boobu nga xam ne indi na ko muy yaa rabbil Mustafa di xasida gu mat a sonne ci di ko jàng itam su ko defee kon sëñ Mor noonu yi nga ko waxee rek incha allahu taala li ñuy door nii ñi ngi ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala defal ñu ko muy lu sell. muy loo xam ne lépp luñ ci wax rek yàlla nañ ko njëkk jëfe te amee ci ngërëmal sëriñ bi ni nga ko waxee muy jataay boo xam ne dañ ci indi dénkaane sëriñ bi dénkaane bi ñuy indi tey nag mooy dénkaane fataxul manaan fi jawaabi abdurahman fataxul manaan euh, xasida la gu gudd goo xam ne sëriñ bi moo ko doon dénk abdurahman daam abdurahman loo sëriñ daam abdurahman loo moom loo ko sëriñ bi dénkoon te moo ko woon ci moom ginnaaw ba mu ko sàkkoo ci moom nag sëriñ bi daal def istixaara ah, ginnaaw ba la ci am ndigalal boroomam nag daal koy def mu doon dénkaane bu am solo su ko defee loolu lépp dana gën a leer ci biir dénkaane li incha allahu taala kon incha allahu taala fii la dénkaane bi tàmbalee